incha allah ñu fas yéene ñëwaat ci ñaareelu bunt bi ci borom burdu ginnaaw bi nga xamante ni ci ubbite gi mi ngi doon waxtaane ci wàllu xazal waaye nag loolu dafa amoon lu mu doon junj xamante ni làkku arab wala wàllu way ci àll wàllu arab day mel nii boo ko sa dugalul riche sa am sa wàllu way wa moo tax képp koo xamante xam na wàllu poésie rek dana nekk lu miin nag mu ñëw si ñaareelu bunt bi fi taxdir min hawa nafs di moytandikuloo bakkan ak ay ayibam bakkan ak la moo tax mu ni fa inna maarati bi suui mataadat min jahliha bi nazir shaybi wal harami wala aata min al fiili al qira wala aata min al fiili al gayra muxtasimi nee na fa inna amaarati nekk sama bakkan bi bi suuy moom de du deñ mukk di ma digal ñaaw ndax xeeti bakkan yi am xam ngeen ko an nafsul mutmainna an nafsul amaaratu bi suuy an nafsu ak xeet yu demee ni ki noonu al amaara bi suu nag mooy ki nga xam ni saa yoo dëgmalee ni damay dem si programme daanaka mu taayel loola boo dëgmalee damay dem jàkka ja mu ni ma mën ngaa dem sa kër boo dëgmalee da ngay fexe joxe lii mu ni la mën nga koo garder kooku mënoo di ko dëkk di ko dimbali si lu chaque jour kon moom chaque jour dalay digal si lu ñaaw waaye nee na moom de ma tanzat waaruwul min jahliha ci ak réeram lan la réere bi nasiri say bi nee na bi jaaw bi dem na ba bi may yedd bi jaaw baa ngi nii di ñëw ma xam ni dee may jege waaye bakkan moom taxul mu waaru mukk wal xërëm yi ak màggataayu yaram bi amatuma kàttan su may jug dan may yëkki mënatumaa dem fenn dan may tàggu rek léegi dematuma fenn nee na moom da waaruwul ci ñaar yooyu nee na wala aate te waajalul min al fi'l al qira min al fi'l al ci jëf ju jëf jëf njekk jëf ju rafet xiraa day fin teral gan alam ma bira si xayra bi nga xamante ni wàcc na ci sama bopp lawu ko lu dul xayra muxtasimi lu dul ak ñàkki kersa moom daal bi ñëw na faaliwu ko màggataayu ña yaram ñëw na faalewu ko loolu lépp tëralu te feeñeelu ko wala tontoowu ko wala jëflantewul ak moom dul ak ñàkk a wekk dul ak ñàkk a safoo lu dul ak ñàkk a yëgoo ndeysaan li sëriñ Babacar si radiyallahu anhu daan wax ni euh, safoo faale safoo gestu maanaam dafa bëgg wax nit ki bu la euh, yëgee maanaam bu amee ci yow cofeel yëg moo koy fay waaye moom daal. nday ndeysaan bakkan yeddaange bi jaaw ñëw na ak màggataa waaye taxul mu tourné moom du deñ mukk di ko digal lu ñaaw tax mu ni law kuntu bu fekkoon ni xam naa ma wér na ma péng alamu an nii ma xam de ma waqiruhu ñoom de du leen wekk ci présence su màggataa yu yaram ci présence su maanaam bi jaaw bi dem na ba xam ni jëm na mag yenn saa yi gis si paa boo xam ni da nga naan kii du tuub xanaa wala mi ngi si carte ba tey mi ci ay caaxaan ba tey da leen romb sa ay gone naan maa leen ko dàqoon ba ma sa tollee waaye bijaaw bi ñëw na taxul mu tuub am kersa waaw di naan borom bijaaw du fay mu ni katamtu dinaa nëbb si ran fi boo xam ne ba daal yi feeñ na feeñ na ñeel na ma feeñ na feeñ na ndax nan maanaam kon de kawar gu ñuul gi danaa ko tent wala danaa ko ñuulal kawar gu weex gi bijaaw bii di feeñ ndax kersa gi ma si am kon de du ko yëg mu bi boo koo ci moom biir kata bi ci nëbbu li mu bëgg a jàngale mooy màggetaay ñëw na bijaaw bi ñëw na waaye téewul bakkan moom du bàyyi aadaam te du aadaja mooy loon matta euh, aadaja mooy woon di ko digal lu ñaaw ba si yàgg mu ni man lii bi raddi jimaaxil xin min riwaayatiha kama yu raddu jimaaxul xayli bi lu jumi ana kan mooy delloo mbewte ga ana kan mooy delloo man ana kan nga xamante ni man lii bi raddi kan nga xamante ni kan mooy delloo jimaaxi jimaaxi jimaaxin min riwaayatiha mammuk bakkan min riwaayatiha bawo ko ca mbewte ga kama yu radd comme na nga xam ne moom la delloo jimaaxul xayli mammuk fas bi lu jumi ci ak laabam aw fas nit dina ko dàq di ko dàq ba ci yàgg mu mel ni ku mamm bu mammoo nag bu boobaa yenn saay laab gi mën naa deñ ci gimiñ gi nan fexe ba delloo ko téewaat ko man koo contrôler mu ne ana bakkan kan moo a ko mën a delloo waatal foofu ndax bakkan màmm na de te moom chaque jour bu tegoo xamul kaay taxawal fii te si beneen xasida bi euh, di nga ko xam si beneen bayit buy ñëw mu ni falaa tarum bul sàkku bil maasi kasra sahwatiha bakkan kat falaa tarum mënoo wala mënoo koo doge ci di fexe di ko reggal kasra sahwatiha mu mënte ne de bil maasi ci ay moy inna taama naka ñam yu xaw day day day sehwa sehwa nasami maanaam biir daal bu demee ba desul lu dul di ko yokk ak reggaay bu boobaa mënta dindi si moom dara inna taama naka naka ñam yu xaw yi day dëggal sehwata yi mooy reggaay reggaay maanaam biir saa su ne bu fekkee ni bakkan yaa ngi ko bëggee téewe wala yaa ngi ko bëgg a yara ni si reggaayu biir bu boobaa xamal ni yaa ngi nax sa bopp ndax bu boobaa loolu da koy gën a dëgëral ci ak mooy gi mu jëm da koy gën a dëgëral ci bëgg bànneex yi kon kenn du ko arrêté ci bànneex yu bari ba si yàgg mu la koy misaal mu ni wan nafsu bakkan de kattif dafa mel ni xale in tuhmilhu boo ko boye booyelee sab ba mu màgg alaaxu bi ridaa ci bëgg nàmp waaye in taftimhu boo ko feree yan fatimi mu fer moom xale buy nàmp moom xamul maanaam dangaa war a fer di nga feral sa bopp déedéet yaay xëy rek daal koy dog mu ni bakkan chaque jour boo ko bàyyee day continuer di nàmp ba na nga xamante ni loolu la soxlaa mu ni fasrif na nga soppi na nga ko dàq na nga ko oññi hawaha na nga soppi bànnee xam bul méngoog moom mukk waxaasi na nga moytu ant wal yoxu mu méngoo maanaam bakkan bi daal di la moom fu mu bëgg rek am na ñoo xam ni tey njaaloo la ñii njaaloo la seen bakkan di xiir ñii tux ñii naan sàngara ñiy buwaat xeeti mooy yàlla yi day wuute ba lu gëj a def rek se leen demaat bakkan moo leen moo leen méngoo da ngay ko wax ne koo xamante ne man moom sama bakkan laa topp moom sama bakkan damaa man inal hawa naka ba leex maata wala loo ko méngoo rek moom lay méngoo yasumi bu yàggee dana rëy nit ki aw yasumi wala mu ayibal ko wala mu gàccaal ko waaw bakkan moom du deñ di nekk ak yow si bànneex yi ba bu boobaa bànneex yi di dugal si tuuma wala mu lay dugal si fitna wala mu lay dugal ci musiba ba si yàgg mu ni wara iha na nga sàmmonteeg bakkan fil ama fil ci jëf yi jëf ju mën a doon saa imatan mu ni xattaa jëf yu baax yi nag waa jëf yu baax yi wa in yee naka moom bakkan istaxalla ndem wàcc na almara ci bërëbu sàmmukaay falaata sumi bu ko bayal de ko topp dee ko surveiller ba tey ndax nee na bakkan même bu nekkee si jëf ju baax daa mel ni bëy woo xam ni mu ngi lekk ci saf tool bu yàggul rek ba moytul boo ko contrôler wu rek dina génn tool bi maanaam ba duggaat si beneen toolu jàmbur bakkan buy jëf dina jëf di jaamu yàlla bu doon weer di tudd yàlla ba dem ba gis boppam te bu boobaa mu perte ko wala di joxe di dem ba gis boppam ni nit bu dul woon ak man du ngeen am nangam kon bu boobaa na nga ko mu ne xattaa jëf yu baax bakkan bu ko bàyyi mu wéet moom dong dee ko surveiller mu ni kam xassanat laddatan lil mar'i qatilatan min xaysu lam yadri anna summa fi dasami ana ñaata yoon la taaral wala ra la lazatan maanaam bànneex lin mar i ñeer astem si wala nit ki xaatilatan te loo xamante ni du ko yóbbu lu dul ci loo xamante ni da rey min xay foo xamante ni du xam lam yeddari du xam anna summa naka tooke fi dasami maanaam mi ngi ci soow wala dasam dina firi tamit li nga xamante ni maanaam diw mi ngi si lekk gi gu neex gi nit ki day lekk soow mi fexe si suuf dan saa def poson waaye bu géexee wala bu demee ba jeex rek daanaka mu yëg ni ndekete moom poson la waaye jamono yi muy lekk xamul ne lii da koy rey xamu ni lii poson la waaye neexaay bi ndax nit ko ko taarale maanaam ni mel ba bakkan bi moom da koy bëgg rek mu ni mu ni wax sa na nga ragal ad isa min juuin wa min shibain fa rubba mahbasatin charrun min minatu xam yi mu ni wax na nga ragal addasa isa yi nga xam ni dañ koo nëbb min joo in cib xiif wa min siba in ak regg nee na bakkan na nga ragal di méngoog moom xattaa xiif dina si awi nit ki di ko maanaam di ko di ko naan jàmbaar nga di ko naan jàmbaar nga mais ni day wax ak xelam ba ko kontu ba loru maanaam ba fa waroon a lekkee mu dem ba deretam am du sa manqué moo xam ndox la lekk nag dafay dugal ñaar yëpp maanaam borom bay euh, borom burdu bu koy wax fii pour nga dégg wax ji liñ si nëbbu maanaam bakkan dina rendee dina rey nit ki foofu wamin sebain ak sib reggaay regg nag fa la gën a yéeméti ndax bu reggee moom nelaw yi ba sëy ba def la neen lu yàlla gërëmul faru ba mahmasati nee na bari na ab xiif charrun moo gën a bon charrun te li ko gën a bon mi na tuxami bari na ab xiif boo xamantee ni mu charrun euh, moo gën a bon mi na tuxami ci fër bari na koo xamante ne xiifam ba lam ko yóbbee fër sax moo gënoon kon mu ni bakkan daal da lay jàngal ni bu ko wóolu si boo reggee bu ko wóolu si boo xiifee ni ah not naa sama bakkan sama moom dama ko moom yenn saa yi mën nga ko def ba tërërëri bu ko salee bakkan jaare la fa moom la ba maanaam am loo xam ne da koy manqué ba yenn xeeti jaamu yàlla yi nga waroon taxawee doo ko mën ndax bakkan chaque jour moom day mel ni day ko taxaw di contrecarrer li la yàlla digal mu ni wa mu ni wastafrix na nga tuur addama a ranxooñ ay ranxooñ min aynin baw koo ci bët xadim tala boo xam ni dafa fees dell minal maxaarimi ngir wotta ndoku yu xaraam yi wala nga ni wastafrix na nga tuur addama a rangooñ minan eh, eh, eh, min aynin baw koo ci bët xadim talaat boo xam ni fees na minal mi ci daw li nga xamante ni mooy ay xaraam maanaam yoo xamante ni dan la ko tere walzim te saxoo saa su ne xiimatan na dem xayma rëccu maanaam néegu rëccu saa su ne del taxaw di jooy di tuur ay ranqooñ ngir bañ a tàbbi ci xaraam yi walla ngir rëcc yu xaraam yi nga xamante ni sa bakkan xiir na la ba nga tàbbi ci mu ni waxaalif nanga nga moytandiku an naf sa bakkan wa seytaan ak sa seytaan waa asima na nga sàkku muslu si ñoom jéem a ñongu ci ñoom bu leen wóolu mukk wa in huma naka ñoom ñaar maxaddaaka ndem laaye biir lan an nusxa ay laaye biir mi maanaam nanga leen moytu maanaam bu leen wóoru da leen tuumaal mu ni falaa tutio bu leen topp min huma ñoom ñaar xasman ci xul ñu lay xuloole wala xakaman suñu lay atte ñu naan lii de moo gën seenub atte de lee di seytaane ak lee di bakkan seeni conseil bu ñëwee rek bu leen jëy bu leen jël fa anta ndekete yu wér na la péng ni taarif xam nga kaydal xas mi pexe yi aji xuloo wal xakami ak ki nga xam ne dalay jéem a xereñe di la laaye biir maanaam wala di la jéem a atte la ni lii ak lii moo gën ci yow mu ni yow da yaa gën a doy atte si ñoom ñaar maanaam bu leen wóolu mukk daal alquran wax na ko inna cheytaana lakum aduwwun fattaxiduhu aduwwa ba si yàgg moo ni maa ngi jéggalu min xawlin ci wax joo xam ne bilaa amal ni te jëfewuma ko laxad nasabtu moomale naa wala nasbaal naa jël leen moomale ci moom nas lan li naa ko amul doom daal maanaam moome la ko maa ngi dige loo xamante ni sore naa ak moom jëfewuma si dara waxinu arab la rek ba yàgg mu amartuka day firi wax ju njëkk ji mu wax amartuka digal naa la alxayra yiw walakin waaye ma tamartu bi bihi taxawewuma ko jëfewuma ko yiw wa ma lay jëfe de kenn seenu ma sa nan dem padduwaa ñu ñëw kenn fekkuma fa wa mastaxamtu tëjuma fa maa xawli lakka istaqim fa maa xawli déet sama wax ji xawli laka mu lay ñeel istaqim si njub nee naa wala tazawwatu te yóbbalu ma xablal mawti la njëkk dee naafila te naafila moom rëccuwul ay farata kon kon kii ma ngi waxe beneen maqaama saan li muy réccu mooy naafila yim deful kon nag waxuma ki julli su waxtu waxuma kii julli ajjuma ba ajjuma wala ki nga xam ne ay julleem ñu ko neex la koy defee waaye moom li muy réccu néewal ay naafilam wala ñàkk koo taxaye wala mu usali te julliwuma lu dul siwaa fardin lu dul koor wala mu asumi te wóoruma woor nag wooru gàtta nga la si jublu kon maanaam dafay jàngale bakkan nin ko war a moytoo ni muy dugale nit tax ba rey nit ngir topp bànneexu bakkanam ngir xaalis wala rey nit ngir jigéen moo tax xam nga rey ko ci njibar moo xam nga tiire ko ci bal moo xam nga fexe ay nit fexe ba rey ko ngir loolu lépp bakkan moo koy waral bëgg àdduna bànneexu àdduna bari na si ñoo xam ni moo waral ñu yanu àqi jàmbur bari na si ñoo xam ni moo xaw tax ay nit di souffrir bari na si ñoo xamante ni moo tax ay nit tëdd kon yal ci yàlla musal ba yàlla méngaloo ñu boppam ba kartanal ñu ba bakkan du man suñu dara waaye du gis suñuy jëf dara yàlla defal ñu tawfiq ak taysiir ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa kon ñaareelu bunt bi foofu la yem asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu